xaar euh, ñu commandé toute euh, la présence de de de. de Papa Djibril Fall mine de rien en fait euh, député sortant également comme ni ngeen ko gis non mu dem def nga xamanteni ni moom mooy set ba Lacoste bu blanc la def génnee ci ci bir bon xam nañ ni mënul gis Bougane en quelque sorte parce que Bougane mi ngi ci loxo yoon ñu koy mais xam nañ ni ñëw na marqué nga xam ne présidence gis nga mi ngi noonu di dox Papa Djibril Fall def Lacoste bu blanc Sagna mais présidence aussi nax nga ko jàngatee est-ce que tu penses que c'est assez logique et normal aussi. Alors, moi je pense qu'aujourd'hui, Bougan Guédani est convoqué ici. La première règle, moi, tous, ces leaders qui ont la coalition, coalition je suppose que nous avons faire mon Nous faire le nous manifester une solidarité à Kamentine, Momodi, Maintenant, vous faites que nous pour la présence médiatique, parce que les journalistes sont là pour nous ku jël kaddu rek après naaw kenn dootu la teg tegaat mais c'est juste pour euh, la présence médiatique maintenant ana Khalifa Sal, ana ñoo xamante ne ñoom ñoo bokk ci coalition yi toutes ces personnes là ne sont pas encore là loolu moo tax képp koo xamante yow nga ne dangaa yor benn euh, euh, public bo xamanteni ça peut tu as la commune accès à la communication facile mun na la dugal lo xamanteni mom modi des dérives dans tes propos da nga wara sétu bu baax a baax Pape Fall

parce que parce que mine de rien gis nañ pap pap Djibril Fall dafa def dafa def dafa avancer arrière parce que xam nañu presse bi mi ngi jàkkaarloo non attends dama bëgg wax bi mu ñëwee dafa avancé ne euh, pour journaliste gis ko en fait pour journaliste remarqué ko wane ko waay waay waay oto bi fële la ñëw porte baa ngi ñëw donc lan lay def fi finalement def défilé c'est pour marquer le coup donc c'est la présence médiatique qui intéresse ces gens là xam naa nag Sagna dañuy xool ñooy jéem a approché wu à peu près un peu dama euh, bëgg a taxaw ba voilà dinañu xool jege see rek voilà ñu xool à peu près nga xamante ni moom mooy euh, waaw jotaguñ koo bàyyi moom moo si xam ne kon moom euh, moom a xool nag bi mu demee gis nañ ni euh, Ouzin jotuñ koo bàyyi xamuñu nag lan moo tax mais toujours mu ngi croiser les baraa rek ànd ak ñi nga xam ne kon ñoom ñooy ay naataangoom Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly moom bi mu ñëwee depuis sama tee moom nee na gis na Bougane euh, Bougane boo xam ne ni ci état bu baax la nekk Bougane boo xam ne ni euh, boo ko xoolee di nga xam ne la moral est bon mais bon xamuñ nag lan moo tax euh, Pape Djibril Fall kon fi mu ne nii jotagul dugg Ousin. mais est-ce que nekkul présence am juste pour marquer le coup en quelque sorte pour wane ñëw naa presse bi jël ko. parce que mine bi ñu gisee mu taxaw gisuñu discussion bu bu xaw a dëgër bi dafa bëgg a dugg aussi. yoon la xam nga Pape Djibril Fall si biir coalition Sàmm sa kàddu la bokk. avant coalition Sàmm sa kàddu lan moo lan lañ njëkkoon taxawal mooy ATEL ATEL benn kuréel boo xam ne la day day day réclamer transparence nu ñuy tëggee élection ak yooyu noonu boo xam ne nii Anta Babacar Ngom donc c'est la bokk gis nañ tierna Bocoum aussi c'est la bokk ba si moom mi nga xamné kon moom mooy Pape Djibril Fall ba si Bougane Gueye Dany kon je pense que c'est très normal euh sen leader bu nekké si jafé euh, jafé melni ñu ñëw apporter sen soutien comme ñëpp ni ko doon défé hein kuñ convoquer rek sa partenaire ci wàllum politique mo xam ngeen bokk langue dina ñëw ngir accompagner la ngir gunge ci la ngir xol tay ban état nga nekk li yëpp manam du lu bees si buñ la convoquer Ousmane Sonko yag nañ ko convoquer ñu gis taxawaay Barthélémy gis Khalif Sall gis donc on euh mon batay mu ngi rek taxaw di discuter dama peut-être. Euh, justement donc meun nañ xaar en quelque sorte euh, bon le Dias présence mine de rien. ki nga xamante ni euh, mm. pratiquement ñu ci kaw coalition